li ci yéen i kay Abdoulaye Bob dal leen ak jàmm yéen a kaa di Walf Quotidien xëy dañu jëktal coow li ne ca boy ci assemblée nationale jëm ci règlement intérieur bu pencum ndaw réew mi yéen a ay député daanaka jóg nañu taxaw ngir wis ah, ndox mu sedd guy ay député wallu ñoom waa PDS jàpp ne jëmmal nañu ca googule assemblée a proposition de loi organique lañ ca jublu mooy ñu ah, càmbaraat ah, bile eh, règlement intérieur bu assemblée nationale su ko defee Ousmane Sonko ñu mun ko fa dalal mu amal déclaration de politique eh, générale am moom mu ngi ci yéen a bi di Walf euh, Quotidien yéen a bi las ne waa sooy nañu assemblée nationale jafe-jafe yàlla leen tënkoon daanaka bëgg nañu yëf ñu dijjante ko ci na mu gën a gaawee mu ngi ci yéen a bi di euh, las yéen a bi te moo ne dañ jiitu réew mi Bassirou Diomaye Faye am na sañ-sañ euh, tas ko ci lu gaaw bu ñu sukkandikoo ci professeur Moussa Diaw fu mu ko teg wax na ko ci biir yéen a bi di yor yor bi yéen a bi heures xëy duñu dégtal ñi nga xamante ñu ngi ci kujje politique bi te tàmbalee fës lool bokk na ci ci jamono ji ñu ngi xool ban profil ak doxalin la ñu fas yéene wone amadu Ba Bougane Gueye cer Thierno Alassane Sall ak Thierno bokkum ak ñeneen ak ñeneen ña ngay wéy di euh, dal ci nguurug Bassirou Diomaye fay rawatina ci premier ministre Ousmane euh, Sonko yéen cabinet euh, ñu bari nag daanaka jotu ñoo addu ca na mu gën ndax ñu ngi moytandiku loole ñu duppee 72 heures maanaam kuy wax naka su dul wala teg ko ci ndoddu njiitu réew mi wala premier ministre mu am ñu jóg defal la 72 heures goo xamante ne daañ la yekk lu mel xeme tax nañu bari sax ji askan wi daanaka nañu waroon a ngir jemmal seen xalaat ci réew mi dañoo faf euh, mandu yéen a bi di euh, turbine xëy di ñu dégtal déclaration euh, de patrimoine maanaam fexe ba nit ki rawatina ministre yi ñu fal bees si gouvernement bi kenn ku ne addu ca lañ la dënk maanaam li nga xamante ne sa moomeel la ak sa alal ci ñaata la toll yéen a bi am nañu ko defagul te délai baa ngi jeex ab ñetti weer yi nañ ci léegi ñu bari ci ñoom nag ay daan mun leen caa fekk mu ngi ci yéen kaabi di turbine ci xëtam bu uh, njëkk uh, téeméeri fan yoo xamante ne nguurug Bassirou Diomaye fay def na ko ci boppu réew mi ndax daañu soobu ci rupture am déet moom la yéen kaabi di uh, turbine bëgg a xam yéen kaabi di sursa xëy di ñu xam lekk ki nga xamante mooy Lass Badiane bokk ci coalition Diomaye président jàpp ne ci assemblée nationale googee gàllankoor ga fa kenn waralu ko lu dul waa groupe parlementaire accompagner mbir ya ci seen teyeef lañ ko teg te ni assemblée nationale mel ci jamono ji jaaduwul Ousmane Sonko war fa mun a dem yéen a kaabi di source ne kenn ci jege ñaale Ousmane Sonko fal nañ ko moom euh, fal nañu sax euh, ka doon faj Ousmane Sonko euh, di docteur Ousmane Cissé neurologue yéen a kaabi ne moom la ñu fal bees def ko directeur général de la santé noonu la ko yéen a kaabi fësale yéen a kaabi di l'évidence ne ci ndajeb conseil des ministres ay dogal yu bëree bëri tukkee na fa fal bees am ñuñ fa folli yéen cabinet ñuñ fa fal bees bokk na ci colonel Amadou Ousmane Ba moom la ñu euh, fal bees ci boppu Descos moo fa wutu colonel Sabouri euh, Ndiaye euh, bu dee nag PCA bu APIX Lansana Gagny Sakho lañ fa teg bes yéen cabinet bari na ay directeurs généraux yu bees ak ay PCA ak DAGE Eh, ña ñëwoon nag ca nguurub Macky Sall ñu bari ci ñoom ñàkk nañu seen ndombol tànk mu ngi ci yéene kaab yi di eh, l'évidence réew mi quotidien des ak ñun ci googule eh, ndajeeb conseil des ministres ak dogal yeneen yu fa tukkee jëm ci joyante ak gën a suqali li nga xamante ne mooy raay yi yéene cabinet président Bassirou Diomaye fay ma ngay gëstu xool ci wàllu financement ñeel chemin de fer yu Sénégal ana ana nu mu tëddee lañ ca dugal ci koom ak eh, ndax jur na njeexital ci réew mi yéen kaa bi di Le Soleil ne moom njiitu réew mi Bassirou Diomaye fay eh, politique eh, ferroviaire bu mucc ay la bëgg a jëmmal ci jamono ji ak ay projet yu takko takku ngir fexe ba dooleel euh, chemin de fer maanaam raay yi yéen kaabi di l'info yemu ca euh, bëgg naa ñu xaymal ko yi fi euh, jot a tukkee ci ay projet soxal financement chemin de fer yu Sénégal rawatina Sen Terre ak Grand Train bu Sénégal loole nag la bëgg ñu teg ko ci tabal ji saytu ko bala nguur gi di jëmmal yeneen i projet yéen kaabi di Le Quotidien di ñu dégtal Alioune Sall mi ñu ne jóge na ca APR fegootul ak magam di Macky Sall ci googule parti xàll na yoonu boppam moom Alioune Sall ay kàddoom ci biir yéen a kaabi di la Quotidien yéen a bi xëy duñu tàggee doomu Sénégal Baba Diaw dem na njiital itoog euh, démb la génn àddina yéen a kaabi ne kàngam la woon ci wàllu hydrocarbure mu ngi ci yenn a kaabi di Le euh, Quotidien la manda moom di ñu ko dégtal njiital itoog euh, Baba Diaw wuy jina boromam Sénégal jooy na wet kàngam la woon ci wàllu petrole yéen a kaabi di la manda moo ñu ko yëggee yéen a kaabi di bés bi le jour xëy duñu dégtal naadis ma ñu ne war nañ ko mun a delloosiwaat ngir yaxanal ak saytu njëg yi gën a doon lu mucc ay yéen a cabinet nguur gaa ngi ci ci googule eh, projet Euh, yéen a kaabi di euh, Sud Quotidien xëy duñu dégtal wàllu déguerpissement ñañu jëlee ci xal yi rawatina marchand ambulant yek ñeneen ak ñeneen ngir tegaat mbir yi ci yoon yéen a kaabi ne du guleet euh, nguur di doxale ni ni mel li ni mel gisoon nañ ko ca nguuruk Abdoulaye Wade gawoon nguuruk Macky Sall waaye daanaka mu fen fenn ndax nguuruk Bassirou Diomaye fay mi bees ci boppu réew mi ak lam cay saytu bees ndax dina ko mujjee yeggaleem déet yéen a di Sud Quotidien moom la bëgg xam yéen a kaabi di stade di xam lekk suñu suñu équipe nationale ma ngay xaar euh, xool kan lay dajel ci Coupe d'Afrique 2025 euh, tirage au sort bi euh, ci alxamisu tey jii lañ koy amal stade ne Sadio Mané ña ngay nëgg xool ñañ cay footballal ci e Coupe d'Afrique des nation tënk la woon ci xëtu yéenekaay yi daañu ci dikkaat incha allah na mu gën a yaatoo